la la Hayla الله سي تبديلي الله عقد يواقيته يا قيلا أدوك بزمز يا غمان باسقة وبالكواكب يا ريم يلا الحمد لله سي تبديلي الله عقد يواقيته يا قيلا أدوك بزمز يا غمان باسقة asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo seetaan ñu leen a nuyu di leen dalal fii si Mbowen clinique tey dañ am ñaari kilifa ñoo xam ne dama am pour teral leen mooy kii nga xam ne moo Alaaji Baboucarr Ngom ak kii nga xam ne moo docteur Tamsir Demba Mbuub tey nag ñu fas yéene waxtaane lii nga xam ne mooy menstruation su ne menstruation mooy jigéen am na jigéen yu ma kool nag loolu moo tax ma jóg pour def programme bi am na ñu ma kool ne ma ndegem health programme nga def te suñu wérgu yaram la bugg nañ soo demee si gynécologiste nga nga waxtaanee lii nga xam ne mooy menstruation kon nag xaaral ma wone ñii nga xam ne ñooy suma kilifa ñi ma fas yéene bokkal waxtaan bi tey. dama laa ñaan ma jox cër kii nga xam ne mooy suma kilifa suma papa kii di alaaji Boubacar Ngom Boubacar Ngom nag moom nekk na ko xam ne mboolem koo xam ne xam nga rek médecine si Gambia fii war nga ko delloo njukkal kon nag papa mala asalaamaaleykum si programme bi ah, tey liñ fi fas waxtaanee mooy mensuration maanaam mbaaxi jigéen Oncle Baboucarr eh, mu bëggoon nga baaxee ñu lan mooy mbaax mbaaxi jigéen suñ ne mensuration lan lañ si jublu. ah nag mooy mbaax mi nga xam ne moom la jigéen di gis ko mborog nag jigéen su fekkee ne mu ngi normal. daf ko war a gis weeru jot benn yoon joolo jigéen su eggee ci wattu mu war a gis mbaaxi jigéen yenne yi dafa dee nekk mu ngi véeri diggante fukki ata ñaar ba ñeen fu waa ah, fukki ata ñeneent su ko dooree rek ki ko ki ko njëkkaayeeg mooy yaayam bu ko gis na loo xam ne mosu ko gis ci yaramam su ko defee nag mu waxtaan ak moo wax nag yi soo ko gisee lan la aka naka la def ba utu sa boppa suturaal sa boppa ba ngaa jeexal mbaax nag ci jigéen daf fi dafay dafa àndaa jigéen ba moo juddu la àndaa moom ba su waxtu wi jotee pour mu gis ko rek mu gis ko gis bi nag diir bi mu am dafa véeri dafa suppale ko ci jigéen na jigéen bokk ne jigéen ñu nekk waxtu wii la ko war a gis déedéet am na ñu ko gis ñeneenti fan am na ñuy wax juróom-ñaari fan am na ñoo xam ne bés bu waaye am na ñoo xam ne itam suñ koy gis dañoo am mbéttit boo xam ne dañ koo àndaale boobu suñ ci ñëwee suma docteur bu mag bi dina ci wax waaw loolu suñ ko gisee ci jigéen dina jigéen wa war bu nekk daf ko day am waaw su ko amee nag am na lu tax muy ko am loolu docteur boobu dina ci xuus ba li ma laa mën a gàttal daal mooy mbaaxi jigéen la mbaax la si jigéen moo tax ñuy koyee mbaaxi jigéen waaw ñu ngi ko ooyee mburuk mburuk waaw c'est jërëjëf euh, oncle Baboucar docteur Mbow euh, dégg nga li nga ne lim fi wax maanaam menstruation mbaaxi jigéen euh, si atti ko borom di war a dooree di gis yow si gyne gynécologiste bi tam si ngeen di use lan mooy menstruation menstruation naka jeka fan la borom war a toll si atam comme ni ko docteur Baboucar waxee su ko dalee mu am PN yu demee noonu lan la war a jëfandoo pour plaine boobu noonu war a stop. jërëjëf Fati Ramatulaay programme bi tey doon na programme bu am solo ne képp ku nga xam ne mu si health sector bi tey dañu seetaan wala doon Gambien dina war a xam kuy Alaaji Baboucarr Ngom ki kilifa gu nga xam ne la kilifa gu mag la si wàllu médecine si Gambia bi daf na lu bëree bëri si médecine. man ci sama boppam ma ko koo di ko sant si lu mu def si médecine si Gambia bi fii nii soowee na lives yu bari te man nekkul ne suma kilifa la rek si medical field bi wante yi tamit si aada yi tamit suma kilifa la fu ma momla. ma moom la eh, door nañ nag tey topic bu interesting lu ñuy wax menstruation menstruation soo ko déggee borom xam-xam yi si gaay ni dañ laa ne jurukaay bi mu ngee jooy noonu la ko day waxee loolu waral ñu ne mensuration Greek word la meaning ne jurukaay bi mu ngee jooy lu tax muy jooy lu waral loolu noonu moo nekk ne gan gum doon expect pour mu ñëw gisut ko mooy fertilize egg bi pour mu ñëw tëdd si endometrial layer bi te looloo tax uterus bi dee jooy endometrial layer bi dee break down breakdown boobu noonu moo dee mooy menstruation deret bi génn mbaaxi jigéen nag jigéen ñi dañ ko dee confuse dañ ko dee jaxase mbaax comme nu ko alaaji Babacar Ngom waxee noomale mu ngi dee tàmbalee si jigéen ji su damee bi am fukki at ak ñaar ñeena ñi sax dañ ne dem eh, daf dee teel a ñëw si ñoom ne si téere yi binda nañ ku am juróom-ñetti at sax te door di gis mbaax dam be fukki at ak juróom benn wala fukki at ak juróom ñett ñeena ñi dinañ ko teel a gis ñeena ñi dinañ ko yéex a gis su loolu xewee jarut jaaxle luñ dee wax rek ne bàyyi rek nico mu flow jël koosam dina ñëw jarut yàkkanti ñaare lool lañ dee advice ñu nga xam ne dam nañ ba am 16 years 17 years although am na yenn pathological problems yu dee cause loolu noonu wante su fekkee ne is normal système bi jarut woori mensuration nag moom jigéen ji su ko gis ñaare bit nga xam ne yaa ngi gis sa fóot doore ko ñaari fan ba juróom-ñaari fan rek is ok is normal ba pare tam su fekkee ne intervalle bi eh, pour gis fóot bi nekk na between 20 days to 39 days rek is ok nekkul ne every on the fourth laa dee gis suma période période bi ñëwut on the fourth mu ñëw on the ten nga ne is abnormal haral ma gisi docteur Tamsir Mbow joom nga du noonu nekkul ne comme numa day wa gay su fi gay ñewé ne ah man day maa ngi waroon gis suma fóot on the third wante ñewul de on the seven la ko gis su ko dafé maré suma la examiner be check because mun na am yena yena possibilities ñoko waral wante su fekké ne is normal dama la day laaj ndax sa alaaji bi every two o'clock nga ko dee tegal sa agn bi xam nga légué léegi ngeen tardé marché léegi léegi tamit. maa la ko xom sax nga ñëw tegaat beneen. nga pare añ boori four five Manako hana ko xanaa léegi léegi nga pare añ boori four five nothing nekkul ne is is permanent in this world lu nga xam is fixed so su fekkee ne loolu xew na jarut wari once interval before na between every 20 to 39 days rek consider it normal su fekkee ne amut any other underlying factor docteur doguma la sax dafa am eh, benn benn problème bu ma benn jigéen koole wax ma ko mu ne moom suy mensurit def over bari deret bi ndax dafa am infection ndax dafa am fibroid ndax dafa am lan lan moo dee waral loolu mu ne. waaw loolu noonu mun na am fibroid su fekkee ne yaa ngi am lu ñuy wax submucosal fibroid boobu mun na isi hypermenorrhagia nga overbleed su fekkee ne tamit da nga am hypertrophia of the endometrial layer mun naa lead to loolu noonu o su fekkee ne yaa ngi am condition bu ñooy wax endometrial polyps yooyu noonu mun nañoo isi